institut Pasteur bu dakaar 11h moo fa jot ñu daje ki nga xam ni moo di Salif jéen mu am lu tollook juróom fukki at moom mi nga xam ne daje nañ ak moom def na test bi ba noppi xaarul rek lu dul ay résultat am génn li ni mel nag nikk ëllëg la war a génn moom sax nee na déroulement test yi mu ngi koy rafetlu. maa ngi nii di jógee kii mbirum institut Pasteur pour euh, vraiment def euh, liggéey bi nga xam ne moo di test bi maa ngi war a voyager baax na def def nañ ko ñu ngi xaarandiku euh, soixante douze heures pour mën a jël résultat yi alhamdulilah ñu ngi sant suñu borom keneen koo xam ne itam ma nga woon ca bërëb ba Khady Ndiaye lay wuyoo jàpp na ni li nga xam ni moo jëm ci respect geste barrière yi li ni mel nag amu fa respecté wuñu euh, non lu ma gis tey moom respecté. Ba Mohamed franco sénégalais la jàpp ne ni la nga xam ni moo jëm ci test Covid yi li ni dafa daal di cher. c'est un peu cher mais bon y a il faut le faire donc euh, mille francs je trouve ça un peu cher mais bon